dafa am mais nan ngay expliquer mhm. euh, décalage parfois souvent ci biir campagne ñoom euh, Bassirou ak Ousmane Sonko demuñu ci benn foyer religieux ils ont battu ils ont ils ont ils campagne. Mm pour le candidat de Benno Bokk Yaakaar y eu des voix et pas des moindres yu yëkkateeku. Euh, wane seen fësal euh, seen seen attachement fëtal fësal euh, seen affection ci ci ci candidat bi ki nga xam ne mooy président de la République Macky Sall en termes de réalisation def na ci foyer ci ville religieuse yi mhm. liggéey bu am solo mais nan ngay expliquer décalage bi am parfois mhm. entre l'intelligentsia mhm. religieuse ak population yi c'est-à-dire on a l'impression parfois que dans les kan waa waa pouvoir bi ñooy gën am accès ci fo ñooy gën a am accès ci foyer religieux yi euh, interaction bi ak ñoom lay gën a bari on a eu l'impression à un moment donné que l'opposition même était était était déla mais ci vote bi à Touba c'est une victoire sans appel 170 000 voix contre 35 000 euh, même chose à à à Tivaouane euh, même chose à à à à Kaolack nan nan ngay expliquer parfois décalage bi am entre taalibe yi ak l'intelligentsia religieuse. waaw c'est important mooy mun a xam nga loolu yu expliquer ko yomb na ñun suñu démarche politique daf ci bokk du ñu politiser diine ji te loolu président Ousmane daf ko wax yàgg di ko wax Sénégalais duñ ci bàyyi xel. ñun du ñu jël diine ji ah di ko politiser parce que diine dafa sensible affaire gëm-gëm la te sénégalais yi ku yaakaar ni mën nga leen a nax sa bopp ngay nax tey ñi nga xam dañ doon dem di jéem a nax sëriñ si di leen gëm ni ñii di waa Pastef bu ñu ñëwee dañ leen fiy jëlee sëriñ soosu ci boppam ñoo ànd ak seen njaboot sanctionné leen loolu mooy dëkk. lim nga dëkk bu mel ni Touba Touba xam nga ni population Touba bi yëpp unanimité ñoo ànd sanctionner le régime parce que léegi ñoom dañoo amul information yu doy bu njëkk kër sëriñ si da nga daan dem ña fay fekk xëy na ay sëriñ lañ sëriñ kese kese mais léegi kër sëriñ bu dugg ci Sénégal da nga fay fekk ay universitaires yoo xam ne domaine boo jël ñoo la ko gën a xam làkk boo wax ñu tontu la politique bi ngay wax ñoo la ko gën a jàng boo indee discours pour di leen nax xam nañ ko boo indee discours pour sa bopp xam nañ ko boo indee discours pour réew mi xam nañ ko loolu moo tax boo seetloo résumé bi nit ñëpp ñoo dem ba ku découvrir andoo ni diine ji tax koo jóg waaye li ko taxoon a jóg mooy dundee diine ji mais dundalu ko. mais mais mais dafa am ma daaneel c'est important ma daaneel c'est important gis nga ñun modab par expérience parce que foo dem ci këru diine yi rek am nañ fa ay représentant tey non seulement ci jàpp ci diaspora bi ak ci quarante cinq départements yi mais ñun buñ demee ba war a def activité politique duñ ko def ci biir foyer religieux ma tey fu mel ni tuubaa xam nga la fa am sëñ Mountakha yàlla ko fi yàlla bàyyi te dëgëral ko mooy day tere bépp luy activité politique ci biir Touba Pastef rek moo ci ci parti politique yi gis fii moo am siège boo xam ni biir Mbàkke la ko am pour respecter règle boobu parce que may mun a il faut nit ñi yàlla du bàyyi jëf di fay ay wax yàlla jëf lay fay. loolu moo mais mais dafa am euh, yaa ngi naan. Euh, xam nga dans certains foyers religieux mhm. dañoo jël position mu leer du pour le candidat de Benno Bokk Yaakaar comme kan on a remarqué même dans l'histoire politique du Sénégal euh, à des moments mhm. euh, am na fi amoon na fi dëgg ay ak benn nit bu jël position non xaaral rek kilifa yu mag mhm. yu joxe ndigal euh, sénégalais yi taalibe yi respecté wu ñu mu mel ni la la la la bu bees mooy mm-hmm. danga may jiite julli mm-hmm. danga may wax ci yàlla mm-hmm. waaye bu wote jotee may wote si ma fi ma neex élection bi élection bi échappé wul dans certains foyers religieux am na ñoo xam ne ils ont affiché la neutralité mais am na ñoo xam ne euh, dañoo wane tamit ab fi xaw a wane euh, benn penchant Euh, pour le candidat euh, de Benno Bokk Yaakaar mais taalibe yi hmm. dañoo def euh, dañoo dañoo dem à contre-courant hmm. yow mii di doomu daara miin cité religieuse yooyu hmm. décalage boobu lan moo ko lan moo ko indi par exemple Abdoulaye Macky Sall ñëw na ci nguur masul mën a gañe fi nga xam ne moom mooy tu moom mooy Touba Abdoulaye moom moo fay moom moo fay gañe même malgré toutes les réalisations 2020 Euh, deux 2019 Idrissa Seck moom moo fa moom moo fa gagné ñu ñëw 2024 Pastef gagné fa et je pense que ci ci législative yi ak locales yi aussi mm. c'est Yewwi Askan bi moom moo fa gagné woon mm-hmm. waaw xam nga may mun a loolu neex na expliquer xam nga boo waxee diine wax ay valeur boo waxee diine wax moral valeur yi réew mi am bu fekkee ni yow ci sa doxalin bi ngay doxal réew mi da ko bàyyi ginnaaw amul kenn ku xam diine koo xam ne nii pare na pour ànd ak yow boo fàttalikoo Macky Sall tey lim fi mu àgg ak doomu daara yi ak foyer religieux yooyu ngay wax benn nit mosu faa àgg ak ñoom affaire génn nañ fi benn pétition boo fàttalikoo ci affaire góor jigéen yi mu indi woon coow lu bari xalifa généraux yëpp signé ko ñu daal di jël kayit googu ba tey ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy laxasee gerte caaf déggatoo ko ci wax. dangeen ngeen koy dëggal da ngeen di. non non dama dama lay dama lay jox rek ay fee. Mhm. yooyu pour yow da yaakaar ni yooyu kilifa diine dañ koy sànni nii rek dañ koy jël parce que kilifa diina bi nga toog di waxal moo la gën a xam li ngay wax boo ñëwee boo ñëwee pour nax ko xam na boo ñëwee pour wax ko dëgg xam na dafa fekk nag dina la ormal yow parce que kilifa nga boroom réew nga parce que kilifa diine yi mënuñoo jàng alxuraan mu nekk seen dënn yow nga jóge fee jàng nasaraan bëgg leen a nax. gis nga réew mi dafa soppeeku. mais ngóor jigéen kenn daganalu ko. kenn kenn kenn daganalu ko ci réew mi. ba ngeen demee ci kilifa na yi dafa am manipulation da ngeen dem foofu ne leen dañoo bëgg a ndaganal ngóor jigéen ci réew mi te Macky Sall. nekk na fii non xaaral rek imam nekk na fii ci Barack Obama ne ko ñun dañoo am suñu culture duñ fi ndaganal góor jigéen. dem na ca France wax wax ko dem na ci tribune internationale yu bari wax ko ba ngeen demee jébbal kayit kayit googu kilifa diine yi da ngeen leen mani jéem a manipuler tamit ne leen gouvernement bi dañoo bëgg a daganal li nga xam ne moom mooy ngóor jigéen ñoom interpellé nañu président ñoom interpellé nañu Macky Sall waxtaan nañu ci at moom ñoom tontuwuñu leen déggaatu leen ci dara entourage bi ñu am boo xamee entourage bi ñu am ak ñi leen di wër kenn mënu leen a manipuler kilifa diine yi kenn ëpp leen information ñun mënuñu leen a manipuler loolu ñu koy wax xamuñu. waaw ah, ba ngeen di wax loolu. xam nga man débat boobu bugguma ci dugg. xam ah, nga man man ban débat laa bëgg ñu ñëw ci. Ah. mooy Sénégal peuple bii ma gis nii dañoo ñor xom kuy wax ak ñoom wax leen lu leer te lépp loo leen wax nga fas yéene cee nekk Sénégal nit ñu xam ni ñuy voté te loolu tamit dañ ko war a sax sant yàlla loolu mooy démocratie démocratie mooy dangay nekk ci këru diine ñii far fii ñii far fee man sama propre sœur yaa ngi dëkk Macky Sall la ànd man ma ànd ak Ousmane Sonko te ñoo bokk ndey ak baay man nangul ko ànd gi ànd ak Macky ba démb bi ñëw moo indi ci otoom parce que loolu mooy démocratie ñu loolu musul indi benn problème surtout ku bëgg a liggéey li am solo mooy résultat yi ngay def moo lay moo lay fal. Sénégalais yi li am solo rek mooy nga jéem leen a convaincre. bi nekk ci église bi bi nekk ci église bi ak bi nekk ci këru diine bi ak ba nekk ca marché ba ak ba nekk ca terrain football bi ñooyam. église këru diine la. waaw moom laa bëgg a wax waaw dama généraliser rek. Ah. dama y ah, a pas l'église ak këru diine yi. église la bokk. waaw loolu laa bëgg a wax ah. xëy na la dama bëgg a wax rek mm. nii. sénégalais fu mu mën a nekk am na candidat am candidat bi ko convaincre moom lay voté élection yi dix-neuf candidats moo amoon coow li bari woon na am na ñu takkoo ni rajo mais sénégal yi xamoon nañu élection bi référendum la te loolu la ñu voté am na ñu fi doon toog di xam-xam lu élection naan élection élection bi mën mënta am lu deuxième tour ñooñu amuñu sax 4 pour cent parce que peuple bi léegi dañoo ñor yaa ngi dégg. ñun bi ñu comprendre loolu moo tax suñu cible mosul nekk ci ay ci ay ci ay ci ay euh, communauté dafa mus a nekk rek avec le peuple. alors euh, message bi àgg na ci peuple. président Macky Sall comprendre bu ñu comprendre moo tax ñu jël décision bi ñu jël.